Aram Niang nekk membre CA comme man di jiite li nga xamante ni moom mooy projet bi fële également yaa Fatou Biaye yaa Khady Seck yaa également le relais ci tour bi encore Awa Mbeng nekk relais si hygiène en milieu scolaire ak suñu stageur bu bees bi donc ñoom ñoo fi teega teewal actuellement ñi nga xamante ni moom mooy le staff technique te boo leen xoolee jotaay yi bu daan am di fi gis ki nga xamante moom mooy doyen Khalifa gis fii ku mel ni Seydina Seydina nag day marqué benn pause bi moom parce que moom mooy le président du conseil d'administration fi ma toog nii di wax moom moo fi waroon toog donc nag yàlla dafa def mu nekk si ay engagement professionnel moom moo tax teewu si mais jotaay yi d'habitude moom moo ko daan présider euh, joxe li nga xamante ni moom mooy def li nga xamante ni moom mooy remise yi donc doyen xalifa également comme ni ñu leen ko waxee si programme projet bi dafa am lu naan CEDIP mooy centre de développement intégré de la petite teral xale yi si le 24 bi donc si yooyu la nekk di dem pour démarcher ji ko moo tax à présent euh, gisoo leen ko fi euh, bu ñu jógee si loolu dañ leen di bàyyil ki nga xamante ni moom mooy euh, Mamadou Diak donc mu def sa présentation parce que wax naa leen que le staff technique tout ce qui est en fait technique au niveau du projet moom moo koy moom moo koy gérer moom fédération Pencum Dakar moom moo ñu ko affecté. donc dañ koy bàyyi rek moom mu waxtaan ak yéen wax également moom lan lan moo fiy njariñam fa defee ñun bu ñu amee lu ni complété ñu complété ko donc dañ koy bàyyi kàddu gi. secrétaire général bi xamante ne moo fi toogal association bi di remercier aussi Badiane Aram ak l' ensemble des relais yi xamante ne ñoom ñooy fas yéene liggéey ak daara yi ak école partenaires yi mooy les relais lavage des mains ak suñu stagiaire bi aussi. Euh, comme ndaje bi man Mamadou Diack laa tudd maa ngi dëkk Wakaam man maa remplacé Dominique mooy ki fi nekkoon dafa il est parti en retraite ma remplacé ko maa ngi fi def six mois waa di ñaan rek ngeen dalal ma si Cambérène bi ngeen ñaana ma fi jàmm ak réussite incha allah maa ngi remercier bu baax a baax tamit Aziz Fall yombalal na ma liggéey bi coordination bi et tout ça ba comme ni ñu ko waxee activités yu ñuy am si wàllum daara yi démb rek ñu ngi doon def visite médicale. mais boo doon xool j'espère que ne lépp moom moo ko liggéey moo ko coordonné parce que man awma si woon benn expérience di ko félicité bu baax a baax ça a été une réussite remercier aussi ñi teewoon démb si activité bi concernant activité bi moom mooy dafa bokk si activité yi xamante ne dafa nekk en partenariat ak l'IEF démb on a monsieur Gaye muy IEF Parcelles euh, mais tardivement laa ko informé mais jox na ma avalam pour ñu dérouler mais nee na ma defal ko benn rapport wax ko école bu nekk ñaata lañ ko jox ma envoyé ko ko via son mail donc am nan avalu tey moo fi woon a toog présider ko mais dama ko ko informer à la dernière minute mais jox nañu quand même aval ñu kii ko si wàllum école yi ñu ngi organiser ay cours de soutien cours de soutien yi mooy ñan li xale yi xamante ne seen niveau dafa faible ñooñu la ñuy jël recenser leen defal leen ay cours de soutien mais loolu ce sont les les directeurs ñoom ñooy ñëw ciblé xale yi ku nekk joxe sa liste ñu def foofu ay cours am na tamit activité bii ñu naan lavage des mais lavage des mais relais yi ni nañ ñëw chaque deux chaque mois ni nañ si ñëw deux fois ñu bëgg ñoom itam bu ñu ñëwee ngeen yombalal ñu ngeen yombalal leen liggéey bi xam ne ne ñun ñoo leen yabal foofu noonu pour ñu mën a liggéey dans le cadre des activités de l'hygiène en milieu scolaire ba tey toujours si école yi boo xoolee amoon na ay yaa trois ans cinq ans joxoon nañ leen ay photocopieuse ay ordinateur yoo xamante ne day mën a yombalal liggéey bi ndaxte ay temps dañ doon jël xale yi di leen jox fourniture scolaire mais ñu xool ne amul benn changement par rapport ak seen résultat te boo xoolee xale boobu noonu bokk projet ñu jox fourniture lu muy dund ak beneen xale Cambérène même situation la te bokkul fii nii si projet bi ñu ne léegi nañ ko def moo xamante ne communauté bi bi yëpp ñoom ñoo si bénéficier wu ñu ñëw def école bu nekk ñu am luñ fa def si wàllum protection dañ fay yëngu bu baax a baax avec les talibés ak aussi euh, ay APDC ay acteurs pour le développement communautaire yoo xamante ne ñooy dem di waxtaan sur le terrain si wàllum euh, kayitu juddu ndaxte kayitu juddu boobu fii problème la fi au niveau de Cambérène ay xale yu dañuy dem jàng ba CM2 seen jàng yaaxu ndax amuñu kayitu juddu. ay ak xale yi xamante ne ñu dañuy subir violence yooyu noonu yëpp dañ si waxtaan ñun leen wax tamit bépp xale boo xamante ne mu ngi subir violence boo leen ko xamee boo leen ko ñëwee référé ko fii si siège bi ne leen wax yan yoon ngeen war a am ba xale bi ñu mën a mucc ayib loolu laa amoon si lu may wax peut-être Aziz après mu complété ko. Ambar Sayala ñun ñi nga xamante ne ñoo ngànk projet bi fii ci école bi. ñoom moom mi Aziz ñu koy gërëm bu baax a baax ndax taxawaay bu am solo la ci am taxaw taxawaay bu am solo la ci taxaw di remercier tamit jaag mi MOPCOM bi mobilisateur communautaire bi moom ma koy gërëm moom tamit mi ngi am taxawaay bu baax waaw comme li mu leen wax rek kii dafa yor affaire xale yi nga xamante ne moo nekk genre parrainage bi hmm. ñun ñoo ngi fi ak relais yi nga xamante ne ñoo yeen yor groupe de jeu groupe de bi nag mooy ngi nekk fii ci kaw benn salle la boo xamante ne moom lañ fa def jagleel ko yaay ak doom yaay ak doom bi ñu ko jagleel mooy xale bi nga xamante ni mënul dem école xale bi dafa nekk juddu démba zéro ba trois ans xam nga kooku demagul école mais dugaluñ ko si société bi ci biir école yi mais ñoom projet Seydina Issa Laye pencum Ndakaaru am initiative bi ni ñooñu dafa am lu leen war a wutal pour préparer xale bi préparer boobu mooy xale bi du question que euh, mu ngi këram kër ga rek la war a nekkam war nañ ko yóbbu foo xamante war nañ xamal ka dimbali yaayam tamit ci yor bi mu koy yor ci kër gi xale yooyu dañ leen di jël fii am ñëpp nag lan ko ñëpp lan ko jagleel xale yëpp lan ko jagleel xale yëpp yi ngi nekk ci dëkk bi koo xamante ni sa jabar am na doom ñu indi ko fii bu ñëwee dinañ waxtaan ak yaay ji ci doom ji ni mu war a yore doomam ci kër gi wax tamit njariñu groupe de jeu mooy lan groupe de jeu mooy yee xale bi xale bi nga xamante ni mu ngi ci kër gi te yaay yi nga xamante ni ñoo indi fii xale yi dinañ xool xale yi ndax seen carte déclaré nañ seen doom hmm? surtout déclaré fan yi bi ma duggee ci école bi di laaj ñeneen ma am na xale yu bëri yoo xamante ne amuñu ay kayit ñu ngi leen bàyyi si école ñuy jàng foofu la ñuy préparé yaay yi pour ñu mën a déclaré xale bi nga xamante ne dafa juddu zéro ba trois ans ñoom ñëpp léegi déclaration xale yooyu pour kayitu juddu yi ñu ngi ciy dox di ci wax pour parent yi dimbali nu si ndax loolu moo gën a metti ci xale boo xamante ni danga nga ko yor di def avenir niiram yëpp te amul kayit kooku dafa mel ni fooy rek amul dara këyit mooy mooy mooy lu jëkk ci xale. xale comportement xale bi nan ngay seetloo xale bi ndaxam gumba na tëx na lu yooyu yëpp dañ koy jàngal fii seen yaay yi pour ñu xam ko ci seen biir kër yi bàyyi ba nga xamante ni li ko dal rëy na nga doog a dem da nga koy teel a seetlu xale bi jàngal seen yaay yi tamit naka la ñuy def pour dem ñakki xale yi. wan leen yoon bi nga xamante ni dañu war a def visite war def yëpp moo tax xale bi du question que yaayam xale bi day jàng si dafa am un mois day jàng si déedéet yaayam la ñuy jàngal pour mu wan nan lay mën a jore doomam ci biir kër gi ci biir kër gi xale yooyu nag ñi nga xamante ni dañ leen indi fii kenn yeewu leen dara dañuy ñëw ajjuma ak mardi bu ñëwee fekk fi ay relais ñu nekk ci biir di waxtaan ak ñoom léeg ñu toggal leen toggal yoo xamante ne moo baax si ñoom wax seen yaay tamit ni leen feññante yii moo baax si ñoom waaw lii la xale bi war a lekk yow mi ëmb tamit lii nga war a lekk lépp rek si aar njaboot la moo tax ñu def ko waaw loolu laa ni moom laa leen di présenté koo xamante ni aussi am nga doom boo xamante ni juddu na yaayam ne ci kër gi mu di ko indi fi àjjuma bu jot ak talaata bu jot ñu ngi fi ba 5 heures yàggul 2 heures de temps dong la bu ñëwee ñu toog waxtaan ak yaay ji defal xale ñu joué ndax joué yi ñu indi teg ko fii joué day yee xale du question que dañuy jël joué bi day yàq nii rek mais xale bi mooy lu mu xale bu la gën a mën a moo la gën a mën a moo la gën a intelligent ci école moo la gën a mën a xam waaw xale bi boo ko bàyyee ci kër nga ni dafa mën a yàq lii déedéet xale bi yàq boo muy defar lu mu yor mu ne karaj mu yàqu mi ngi defar xel bi bu baax a baax ngeen bàyyi si xel loolu laa ni woon naa ci mottali. donc wax na lu am solo boo xoolee euh, ñu nga ki nga xamante ni moom mooy suñu partenaire local suñu partenaire potentiel muy Child Fund dafa toog def benn seetlu mu ni depuis 30 ans mi ngi jël ay fournitures scolaires di ko jox xale yi. te jusqu'à présent résultat yi changé wul donc aujourd'hui ñu ni liñ doon def si ñenn si xale yi changé wul léegi nañ ko jël traduir que su forme ay produits wala dara loo xamante ni ñëpp siy jëriñu maanaam dan amoon suñuy xale mais léegi nag amul xale ma sàmba amul ma xale ma demb juste pour éviter la discrimination xale yëpp la yamale parce que je pense que ni boo jëlee ay produits yóbbu ko si école yi xale yëpp siy jariñoo boo jëlee ay produits yóbbu ko si daara yi xale yëpp siy jëriñoo donc moo waral programme yooyu noonu ñu tra traduire ko sous forme de ay projet donc projet bu si nekk ak fi mu jëm am na bu jëm si wàllu éducation am na bu jëm si wàllu santé yéen a ma ko gën a xam ñu fi toog xam nan ka Covid bi bi mu fi jaaree metti woon na lool mais daara bu si nekk amaana dimbali nañ la astuut même bu la mënul yóbbu lu sori am na fu sori foo xamante ni euh, jot na la fa yóbbu donc am na yeneen programme yoo xamante ni am na fi lu mel ni ay avec avec association villageoise d'épargne et de crédit pour jàppale femmes yi parce que dañ ni euh, boo boo bëggee jàppale xale dangay jàppale ay waajuram en fait waajur bi bu demee ba am assise financière dina mën a contribuer si li nga xamante ni moom mooy éducation doom yi donc fii nii waxoon naa leen ko sànq am nañ fi CEDIP am na fi ay groupe de jeu je pense que Aram mën nañ ko bàyyi après mu ñëw si solo si groupe de jeu ak lan lay jëriñ ak li nga xamante ni moom mooy kii bi am nañ fi lu mel ni cabinet dentaire tey ñun ñëpp xam nañ ni faj bëñ dafa seer mais ñun bu ñu ko installé c'est des par exemple sociaux yoo xamante ni nit ñi mën nañ ñëw faju te duñ yëg ni faju euh, dépensé nañ xaalis donc yooyu yëpp am na fi c'est des programmes yoo xam ne am nañ ko ak yeneen ak yeneen donc euh, loolu moom mooy solo euh, li nga xamante ni teewaayam fii si projet bi donc objectif kii bi nag wax na ko parce que je pense que ni tey bu ñuy investir dan fee dan def benn remarque bu njëkkoon dañ daan cible rek li nga xamante ni moom mooy école yi ñu ni tey boo duggee si école mën nga am possibilité toog mais yenn si daara yi boo duggee da ngay da ngay gaaw génn parce que amul set ak sell bi war ñu ni nag ñun dafa am ñoo xamante ni ce qu'on ay daara partenaire ñoom la ñuy liggéeyal nga xamante ni tey partenaire fu mu jógee si àdduna bi mën nañ leen fa yóbbu te buñ demee dinañ gis cas de te man j'en suis persuadé que ni depuis bi ñu commencé liggéey ak yenn si daara yi am na benn amélioration bu mag a mag a mag parce que lép lépp luñ soxla ñun ñu ngi siy taxaw mais ñoom tamit luñ soxla pour seeni ndongo ñoom ñu ngi siy taxaw donc moo waral programme yi ñu boole si daara yi boole si école yi école yi nga xamante ni ñu ngi Cambérène yëpp ak daara yi nga xam ne ñu ngi Cambérène pour jox leen li nga xamante ni moo ko moo fi nekk li ngeen gis ni du yamul rek Cambérène c'est pratiquement dans tout Dakar c'est des millions c'est des millions yoo xamante ni dañ koy jël pour jagleel ko daara yi jagleel ko école yi mais nag joxuñu ko rek pour ñu dem stocké ko fenn mais bu leen ko joxee day am suivi wax nañ ko sànq dañuy jox ñi nga xamante ni moom mooy euh, euh, relais yi ñu ñëw seen i école ñëw seen i daara pour wan leen nan leen koy jëfandikoo ba set ak selle bi mën a continuer di way teewaay bi fii teewaay bi nag nekkul loo xam ne lu bees la yàgg nañ fee teew depuis ay ati at macha allah ñuy yàgg jëflante ak yéen ngeen yàgg di ñu ñuy teewe yu mel nii yàgg ngeen ko def kon di leen ñaanal rek yàlla yombalal leen lépp loo xam ne am ngeen ko yéen def ko ci Cambérène def ko ci école yi defal def ko ci daara yi yàlla yàlla nangul leen ko te li ngeen di def kat xeeb ngeen ko waaye nag nekkul lu xeebu lu bari la ci yàlla yonent bi aleyhi salaam dana nee suñ borom nit dana sarxe dara xeeb ko lool yàlla di ko yar di ko yar ba mu rëy comme ni ngeen nit amee aw mol bés bu ne nga koy jox ngooñ muy lekk di lekk ba rëy nee na yàlla noonu lay jëlee sarax ba bu tuuti ba di ko rëyal di ko rëyal di ko rëyal di ko yar ba mu rëy lool macha allah kon nag lii nekk na am solo te lii dafa jëm ci wàllu set te wax nañ ne set ci gëm yàlla la bokk te fu mbooloo di dajaloo dafa di set nit ci boppam daa di set moom it te loolu mooy tax mu mën am wér mën a am jàmm kon yéen bu ngeen ñëwee di ñu jàppale mbooloo mi di ci jàppale nit ñi loolu duñ mën lu dul sant leen ndax dafa nekk loo xam ne war teef la ñëpp ko war a def lu ñëpp war a def nag yéen ngeen jóg euh, daal di koy gàddu loolu di def li ngeen man loolu lañ leen ci sant rek di wax ne yéen daal seen liggéey rafet na loolu dëgg yàlla liggéey la boo xam ne liggéey bu set la defaa fois léeg-léeg sax ngeen fekkee ndax yéen am ngeen ci loo xam ne xibra boo xam ne yàgg ngeen ko def yeneen réunion yi def ak daara yi ak minister yi ngeen teew am na sax yoo xam ne ragal naa war ngeen war ngeen ko mën a jël yéen di bokk di di ko def lu mel ne wàllu kayitu juddu yéen ngeen ci doon wax sànq ñun bokk na ci keroog bi ñu dajee ak président lañ ko doon demande ci loolu mu jàpp ci bu baax a baax waaye wàllu kayitu juddu ndax bëri na xale yoo xam ne ñu ngi ci daara yi amuñu kayitu juddu loolu léegi sax ñu ngi leen defal formation léeg-léeg xale yi dañuy am dañuy soxla kayitu juddu duñ am te loolu ko amul doo a am diplôme te am solo la kon loolu di ci taxaw loolu am na solo trop daal kon daal ci gàttal dafa mel ne xaw naa naaj di leen ñaanal bu baax daal am mbégte bu yéen bu baax a baax mbooleem daara yi ngeen di jëflanteel ñu ngi leen di béggee waaw ñu ngi leen di bëggate di a baax am a baax seen koy daal jël léegi foo xam ne fu ñu jàngi alxuraan la foo xam ne malaaka dafay ñëw ku ne dafay ñëw dafa war a nekk xet gu xeeñ xet gu neex dafa war a am bokk na ci liñ dig ne kii julli nga laal parfum pour fi ngay nekk set set dafa am solo dafa dégg inna allahi tayyibun la yaqbul illa tayyiban ko teey la du nangu lu lu teey bokk na ci lii yàlla digaloon yonte ba siyaa ba ko tahir mooy day laab kon loolu dafa am solo kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàlla yàlla nangu leen yàlla yàlla fay leen li bëgg lépp rek yàlla yàlla nangu leen ko ayo salaamaaleykum wa rahmatulah li njëkk mooy waa pencum Dakar mën naa leen limal ñi fi nekk daaw ñi fi ñu jaar ñëpp ba ci bees ki ñoom Saba Xaaw vraiment ñoom libaas ma leen xamal ne dañu nekk ay partenaires yoo xam ne Cambérène jii muy le maire en tant que représentant de maire en tant que directeur d'école ba Macky Sall xam pencum Dakar lan lay liggéey ci gox bi mu nekk Cambérène ay partenaires yoo xam ne lañ amuñ égal amuñ morom te duñ ko tëkkale keneen ci côté yëpp nag parce que pencum Dakar préoccupation yi muy jël en compte moo bëri mais balaa may développer damay nuyu Abdou Aziz Fall kii suñ fierté la ñun ñëpp muy doomu dëkk bi am nu mu taxaw ci dëkk bi mat li mu doon am xam-xamam de passage mën naa am jàngal naa ko IOA je fis il fut mon élève tey jii mu nekk suñ fierté Aziz buy wax nga xam ne kii macha allah am na xam-xam bu sell bu rafet ba tax tey Cambérène ñu ngi lay fierté nga ci dëkk bi yëpp ak sama bàjjen gox yi ak relais yi yéen ñëpp maa leen nuyu. pencum Dakar Aziz waruñ ko tànkam normalement directeur école publique yëpp dañu war nekk fii ñoom ñu njëkk a may ay photocopieuse lépp loo xalaat bu intrant pédagogique liy participer ci résultat yi pencum Dakar moo ci taxaw lii moo mujj parce que année bu nekk ñu xool préoccupation euh, école bu nekk ñëw dox ci loolu kontaan naa na bi ma déggee encore na ngeen enrôler arabe ki les maîtres d'arabe ak école lu am solo ngi noonu lu am solo loolu mooy wane ne yemale ngeen ñëpp yëg ngeen ñëpp mooy lu Oustaz wax léegi rek man Aziz damay wax ne xam nga tey bu ngeen ñëwee nii ñi ñëw jaar contrôle xool savon yi ñun amuñ beneen entrant pédagogique bu jógee inspection lu dul yéen li ngeen ñu jox moom la ñuy rationaliser muy saabu bi muy kotal bi loolu mooy fonctionner la suñu école yi moo tax ñu leen bàyyi bàyyi laay mu fay leen rek di wax nag jëmb ju bees yi ñëw fii ñu ngi koy dalal di ko wan ne ko ñu fa jaar ñëpp macha allah te moom tamit ni mu commencé nii am nañ ci yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar vraiment kontaan nañ jërëjëf. monsieur Ndiaye bu xasee wax rek wax na suñ tur ñun ñëpp xanaa daf mooy yéene jël kàddu gi rek euh, ñu nangu ko tamit ak kontaante bu baax. di rafetlu vraiment pencum ndakaaru seen liggéey euh, ak euh, école yi ak daara yi di wane ni rek vraiment action yi ngeen di def euh, ay action inclusive la parce que lépp la luy santé lu jëm ci mbiru éducation lu jëm ci mbiru social gis nañ ni vraiment yéen a ngi ciy taxaw surtout affaire état civil loolu vraiment li ma leen di gën a recommander mooy ngeen jéem dimbali euh, xale yi nga xam ni nii amuñu këyit c'est surtout nekk ci classe d'examen loolu souvent dañ ciy am ay jafe-jafe yu mag a mag a mag kon nag euh, rafetlu nañu vraiment seen taxawaay seen éléments yi aussi muy relais yi ñu am Pastef lañu euh, te bu ñu ñëwee ànd nañoo daal vraiment bu ñu ñëwee ci école. gis nañu ni ñuy comporté woo ah di liggéey ñun depuis man bi mu fi ñëwee ba léegi vraiment yàgg naa leen recevoir yàgg naa collaborer ak ñoom te xam naa noonu la ñu def ak ñëpp kon na dañuy ñaan lii ngeen tàmbali ah yàlla may leen ngeen dem ba budget bi gën a yokku ah dotation yi gën a yokku ngeen gën a mën a agir ah, sur le plan sociale ngeen gën a mën a agir aussi ci santé ak ci scolaire pour le bien de la population kon nag ñi ngi leen di gërëm. ndax liggéey bi rafet na trop daara gaa yaa ngi koy xeexal ay lum lekk ay lum naan dañuy fàtte yii sax te yii ma nekk loo xam ne moom lay soxla yi tuuti saa su nekk saa su nekk rek yii lay soxla ndax dëgg yàlla xale yi lépp luñ bëgg nañ ci ñoom lépp mais lii moom defal ngeen lu rëy. ak wàll tamit bi dañ ci dañuy communiquer rek waaye fàttali nañ santé bi santé moo ëpp solo démb teew nañ gis nañu lañ fa jëlee ci garab lépp xale yi démb dañoo amaat courage parce que loolu ku la ko jox ku la jox garab rek soo ñu la ne say njaboot sant bi gere ko démb kontaan nañ bu baax encore tamit nga tegaat lii ñu ngi kontaan bu baax ndax lii lu am solo ci daara li mooy sa xale yi nañ am wér yaram waaye sa xale yi nañ set sa daara tamit na set kon yéen a ñuy encouragé pour seetal daara yi ah gis nañ suñu bopp ci yéen ndax saa su nekk ndimbal ci yéen lañ koy amee gisuñ kenn ñun bu gisee ndimbal fii lañ ko gisee waa ah, état bi seen seen kàddu la ñuy dégg rek waaye yow la ñuy gis yéen la ñuy gis yéen a ñuy wéttale yéen suñu mbokk yén a ñuy jàppale bu baax kontaan nañ bu baax a baax ñun di leen di ñaanal ñun tam ngeen gën a kawe parce que lii rafetlu nañ ko nekk na loo xam ne sori na si ñun lool ndax. dañ koy bëgg waaye yombuñu parce que ku yor njaboot bëgg nga ñu nekk bon en condition bëgg nga ñu nekk set bëgg nga ñuy am santé bu baax mais tamit man-man bi ak amaan moo fa yeggul mais lii bu ngeen ñu ko joxee dañ koy utiliser ba mu jeex suñu yeggee comme ni ko oustaz waxee xale dañuy kontaan am nañ saabu yu bëri ñuy defar dañuy kontaan am nañ omo yu bëri am nañ eau de dañuy am envie defar kër gi te dañuy am envie sangu bu normal mais bu fekkee ne mbooloo dañoo bëgg a sangu nga jox leen ñaari saabu dañu am envie sangu parce que xam nañ ne saabu doyul mais boo tegee kee saabu yi dañu am envie sangu nga gis xale boo xam ne tilimul mais day naan damay sangu parce que gis na saabu souvent ñoom dañuy bëgg a sangu fekk sa poos yi dara new fa nee xappoo leen ndox mais bu ñu amee saabu kon yéen a ñuy dimbale ci set gi ñu ngi leen di remercier bu baax di kontaan bu baax ci ñëpp waaye Asida ñu ngi lay beral nuyoo di wax ne bu ñu gisee ndimbal daal yow la ñu gis kontaan nañ bu baax a baax macha allah.